الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ينجي دل سوات di daje ci néegu borom bi ci bind fiq yi ñuy jël di sukkandikoo ci téere bi nga xam ni moom mooy risaala bu ibn abi zayd al qayrawani ñu ngi nekkoon ci fanweeri fanweeri bunt bi ak ñett muy baabun fi lidda wa nafaqa ba yegsi woon ci jeexital ba fi muy waxee ni wal mar'atu turdi u waladaha soo yoree traduction yu xonq yi yaa ngi ci page 177 bu dee ni ci samru daani bi yaa ngi ci 491 ci ligne bu jëkk biir ci kaw rek da ngay gis fa ligne bay jeexe wal mar'atu turdi'u waladaha kon mbokk ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ci daje bi ñu daje ci néegam donte ne ni ñoo ngi daje it ci daje yu yéeme ca mooy natt bi yàlla subhanahu wa taala wàcc ci ñun tax na ba ñi daan dugg ci jàkk ji yépp mënuñu fee dugg ndax distance yi nga xam ne dañ koy sàkku ci nit ñi donte ne ne doomu aadama lu yàgg ci moom rek da koy miin looloo tax charte yi taxoon ñu ubbi jàkk ji waxoon nañ ko nit ñi mooy ñu ngi sàkku kuy ñëw mu indi sujjaadaam waaye rawatina nag ci li nga xam ne moom lañ gënoon a insister mooy ngàllawaay ku fi ñëw ne indi maskam donte ni loolu ñu bari ci nit ñi léegi gis nañ ni ñi ngi koy sàggane loolu nag mbokk dañu gis ne ak tooñ da cay dugg ndax yow boo demee ba ne faaliwoo feebar bi da ngay gis ne ka nga dendal ca sàppe bi moom cam gëm ne mbooloo mi buñ dajee dañu war a takk ay masque ku mel noonu da nga jaxase la nga xam ne mooy xelam loolu moo tax day bokk ñu ngi sàkkuwaat ci nit ñi doomu aadama bi yàlla ko bindee fàtte waaye ngalawaay ku fàttewul booy ñëw ci jàkka ji indaaleel sa masque loolu moo gën a dal xel ñeel la te it moo gën a dal xel ña nga xam ne da ngay dend ak ñoom tey jii mooy le douze ci mois de juillet di tombeek le vingt et un ci zul qaada sun maam yi di ko tuddee diggew tabaski su dee ne ñun ñëpp bokk nañu gis sunu bind bu jëkk kon incha allah mën nañ koo jël day wax ne kon wal mar'atu turdi'u waladaha fil isma jigéen day mooy nampal doomam su dee ma nga ca buumu sëy ga illa an yakuna misluha la yurdi'u xanaa lu dul ñu nekk ci aada yi ñoo xam ne ku mel ne moom du nampal wa lil mutallaqati radaau waladiha ala abihi amma ka nga xam ne dañ koo fase nampal ga ñuy nampal doomam baayam moo ko war a fay wa laha an taaxuda al ujra ujrata radaiha inshaat soxna soosee su ko neexee fayee ko baayam loo xam ne nii mooy payug lam koy nampalal doomam ca mbokk kon bind bi day wone ne jigéen bu nekkee ci sëy yàlla wërsëgal ko doom doom boobu moom la lislaam sant mu nampal ko nampal googi demoon nañ ba lenn ci tubaab yi créé ay biberon yu kenn xamul waaye ñoom ñépp dem nañ mujj dellu si waat ne dekate xale bi amul lenn loo xam ne mën na koo jëriñ ci lu mel ne meew ba nga xam ne ni da koy nàmpe ci yaayam su boobaa nag nàmpal googe kenn du ko ca fay dara ndax mi ngi ci buumuk sëy bokk na ca lam fay taxawe mooy taxawe kër ga waaye yépp nàmpal ay doomam léeg-léeg nag nga dem ci ay société ñenn ci ay doomi buur walla ay doomi ñañu fonk seen aada mooy seeni jigéen duñu nàmpal doonte ne ni bu dee ñun fii Afrique dana jafe lu mel noonu nga gis ko fi ndax boo demoon tey ci dëkk arab yi ñoom seen aada bokkoon na ca mooy ku am doom danga koy yóbbu ca kaw ga ñu nampalal la ko fa même bu dee bokkoo ci ñi nga xam ne dañoo am yéen ñépp xam ngeen ni suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam jëloon nañ ko yóbbu ko ci ko yóbbu woon mooy xalimatu saadiya moo ko yóbbu woon nampal ko ay at mu nekk ko ca moom ba baa mu koy delloo sil yaayam waaye nag société bu nekk itamit léeg-léeg ñu am seeni aada yoo xam ne bu dérangé wul islam du leen ca wax dara kon mi ngi noonu léegi mu des nag soxna si dañ koo fase dañ koy fase am na doom boo xam ne da koo yor doom bi nàmp maadaama kon nekkatul ci bu mu sëy a dañu naan yow wayjur wi yow kat yaa war a fay kon la nga xam ne mooy nampal googe wa ala mawludin lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf loolee kon mi ngi noonu ñaari mbir mën caa am mooy imma bàyyi jël doomam jox keneen ku ko ko nampalal na doon kooku da koy fayam da koy nampal ci coobare wala boog yaay da nga xam ne moo jur doom ji dëppoog moom ci salaire bu mu koy fay mu ko koy fay mu nampalal ko ba xale bi fer soxna si salaire boobee muy jël di nampal doomam loolee lislaam daganal na ko ci moom ndax maadaama teqidikoo na ak baayam nampal gi léegi nekkatul farata ci moom doonte ne ni loolu la suñu borom wax ci téere loolu la fuqaha yi wax waaye daanaka bu dee suñu réew yi moom jafe na fi mu nekk aada ngay gis lu mel noonu waaye bu ko soxna sa sakkoo it loolu yi lu mën a nekk la comme bàyyi bu jëloo nit nekk nañ ko jox keneen mu nampal it loolu li mën nekk la kon loolu la wax ci wàllu nampal googee suñu jëlee beneen bind mu ne wal hadanatu lil ummi la nga xam ne mooy yar xale ba nga xam ne dañoo fase yaayam dana ñeel yaay jëmoo ci priorité baada talaaqi gannaaw bañ ko fase ila al ixtilaami zakari ba baa xale bu góor ba di majeur te mooy tëdd guddi gént yëg ne am na lu génn ci moom wala boog ay âge am yóbbu ko ci mu majeur muy tourner entre quinze ans à dix-huit ans selon race yi wa nikaahi l unsa wa duxuli biha yaay jiit moo yey ci yor doomam bu jigéen ba baa ñu koy may jëkkër ba jëkkër ji di dugg ci moom di ànd ak moom ci lal wa zalika ba'da al ummi gannaaw loolu nag gannaaw yaay ja in maatat aw nukihat su dee yaay dafa faatu wala mu dugg ci beneen sëy loolee day nekk lil jadda dañ koy yóbbu kon ca maamam bu jigéen ba jur yaayam summa lil xaala bu fa maam nekkul ñu jox ko tantaam fa in lam yakun min zawil rahim ummu ahad su dee ne ña nga xam ne ñooy mbokki ndey yaayam kenn nekk fa fal axawaat wal amaat su boobaa nag ñu jox ko kon ay sërëm ya nga xam ne ñoo ko mag wala la nga xam ne mooy ay bàjjanam fa in lam yakunu fal asba asaba su dee ne loole amul ñu doog a xool wàllu géñoom ana kan lañ ko tey jox kon mbokk lii day wax masala doom bi nga xam ne dañ koy yar fekk dañoo tas li mu wax mooy yaayu moo cay priorité moo koy war yar ba baa muy majeur su majeure nag moo yor boppam ki majeur moom islam toppatootul ku koy yar maadaama majeur na majeur na am na jëkkër jëkkër ji jël na ko kooku it islam lijjanteetul ay waajuram lu ñu cay def jëkkëram moo koy yóbbu lii problème bi kay mooy léegi xëccoo am na ci doom bi benn soxna ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ko sama doom jii day maa ko ëmboon maa ko nampal sama poot yi la doon noppaloo bàyyam fasama tey nag ne da koy jël yóbbu yonent bi alayhi salaam ne ko ante a xaqu bihi maa lam tankihi yaa ci gën a yey fii duggoo ci sëy kon soxna buñ ko fasee tànk sëyul doom jam yor moo gën a yey ci yor ko bu dee ne mazhab Maalik ci li ñuy wax ñoom moo ko yey yor ba ba muy majeur soo demoon ci yeneen mazahib nag ñoom am na yeneen at yi ñu cee wax mooy bu dee xale bu góor bu dem ba am sept ans su ci xëccoo amee dañ koy laaj papaam ak yaayam ana kan la ci bëgg a nekkal te loolu yonent bi alayhi salaam defoon na ko allahuma wax yi bari na ca waaye bokk na lu ca gën a logique mooy tënk bi ci boroom xam-xam yi wax mooy tas bu amee diggante ay xale islaam attekat bi du xool intérêt way jur yi waaye intérêt xale bi lañuy xool su ko defee attekat bi mooy def enquête am ba xam xale bi ana fan la intérêt am nekk bu dee bàyyee noonu la bu dee yaayee noonu la ñu ngi noonu ngay fàttali kenn ci attekat yi benn xale dafa ñëw papa mag yaay ji di ko xëccoo fekk ràññee na attaket bi na ko waaw yow sa papa ak sa yaay koo ci bëgg a nekkal mu ne ko man suma papa la bëgg a nekkal mu ne kon papa jël ko yóbbu yaay ji ne attaket bi laaj ko lu tax mu ne dafa bëgg a nekk ak papaam attaket bi na ko waaw lu tax nga bëgg a nekk ak sa papa mu ne ko sama papa bu ma demee du ma wax dara fu ma neex foofu lu ma neex def sama yaay nag daf may sonal jógal jàng jógal nangam mu ne hee yaay jëlal sa doom nga yóbbu yaa ngi dégg loolu kon mooy règle générale mooy lii bu problème amul tas am na yaay moo gën a yey ci xale bi tànk sëyul am maa nag bu si dem nar a ànd ak beneen góor ah su boobaa dañ naan doom di jël ko jox ko sa sa yaay bu fa nekkee muy maamam wala tantaam wala jigéen bu bokk ci yow su dee jigéen yu sës ci moom amul ñu doog a xool waa kër baayam kuñ ko fay jox loolu mooy bu problème amul amma nag ba problème amee ixtilaaf am na tuuti ci borom xam-xam yi waaye daal li ñu leen wax la ci gën a logique mooy attekat bi na def enquête am ba xam ñaar ñii di xëccoo xale bi fan la intérêt xale bi nekk su boobaa ñu jox ko ko loolee la ñuy wax ca wàllu la nga xam ne mooy hëdaana waaye du ñu dogu rek ci ne automatiquement toujours yaay la war a àndal wala HLM ba fa yëggee automatiquement toujours bàyyi la war a àndal loolu yi moom la ñuy wax ca wàll googee incha allah bala ñu sori xëy na ñàkkul mbokk ci doon laaj waaw waaleykum salaam bu dee jigéen mi ngi nàmpal papa ji moo war a fay yaay ji bu dee tas dafa nekk seen diggante amma soxna bu dee ne yaa koy yaa ngi nekk ci sa sëy yaa koy dundal yaa koy waddu yaa koy dëkkal kon amul lenn loo xam ne da nga koy jël salaire salaire di ko ca dollil encore déedéet jigéen dafa war a dox ci service su jëkkëram looloo tax islaam tudde ko ab sangam amma nag bu tas amee ca la fay doog a am waaye islaam waxul fen ne soxna bi ngay sëyal mu lay nàmpal sa doom da ngay jël salaire boo koy jagleel ci nàmpal googi loolu moom islaam waxu ko wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam ah maadaama lislaam dafay wax ne bu dee soxna si moom loolu mooy yaa ngi ci jublu ki nekk ci buumu sëy ah waaw ki nekk ci buumu sëy liñ leen wax mooy soxna si amul droit di ci laaj fay waa ji ci boppam amul lu ko lislaam teg na ko day fay moom nag bu amee coobare ak boppam jël xaalis na ko yaa ngi nàmpal sama doom may ko ko koy même bu nàmpalul doomam sax lislaam du ko ci wax dara sa soxna la xam nga jël nga sa xaalis may ko loolu moom lislaam du la ci wax dara waaye daal nañu xam ne ba nga koy may it du àq boo ko yoral moom it amul àq bu mu amul droit laaj ci loolu amma nag suñu borom subhanahu wa taala mu ne wala tansilu fadla baynakum góor lépp lu mu yëkkati di ko may soxnaam lislaam du ko ci wax dara bal contraire ba sax soxna lépp lu mu yëkkati di ko may borom këram islam da koy rafetlu du ko ci wax dara donte ne lu bëri ci jigéen ñi dañ koy fàtte waaye suñu borom dani bu leen fàtte ay ngëneel seen diggante xatta can can googu sax suñu borom mu ne fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fa kuluhu hani'an mari'a xatta can bi nga can jigéen mu yëkkati ceer ba wala kii mayaat la ko suñu borom mu ne jëlal nga lekk lu dagan la yaa ngi dégg loolee kon diggante way dencante yi ñëpp a war a mayante waaye nag du nekk àq boo xam ne dañ naan àq boo ko yoral la wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam bismillah naam ndax boo dee jël sa doom di ko jox keneen mu nàmpal day fekk yaayam amul soow wala am na soow ala kulli xaal su dee ne moom mi ngi nekk ci bu buumu sëy gi loolee moom da ngeen ciy dëppoo wax naa la sànq ne aaday arab ñoom seen doom dañ ko daan jël keneen nàmpal in aradtum an tastabdi'u awlaadakum falaa junaaha alaykum suñu borom bu ne bu ngeen bëggee nàmpal seen doom dara nekkul ci ci ci seen diggante loolu kon moom mbir bi aajuwul yaay ji am sow wala yaay ji ñàkk sow su ko defee daal yaay ji moom bu ko mënee nàmpal islaam loolu la rafetlu bu dee ne ki nga xamee ne nii mooy baay bi yor soxnaam ci kër gi mu leer ko ne soxna si am na soow ko mel noonu da koy mën na ko imposer na ko nàmpalal ma sama doom nàmpalal ma sama doom kooku moom àq la bàyyi imposé ko lu ko nàmpalal ma sama doom mi ngi noonu amma bu ko jëlee ci coobareem jox keneen mu koy nàmpali loolee moom da ngay gis ne alors dara néew ci waaye la gën a yey ci doom mooy yaayam nàmpal ko loolu mooy la nga xam ne moo gën a yey ci yaay mu nàmpal doom bu dee ne nag tas am na suñu borom dane in taasartum fa sa turdi lahu uxra tas am na yaay ji am na sow nga ne ko nàmpalal ma sama doom mu ne la waaw da nga may fay cinquante mille par mois te yow amoo cinquante mille kon nga jël sa doom jox keneen mu nàmpal waaye daal bu yombal amee moom kay priorité ci nàmpal moom mooy yaay ndax nàmpal bi du soow bi kese waaye dafa am affection ak psychologie yu bari yuy ànd ci yaay di jël doomam di def ci dënnam di ko nampal wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam naam naam dafa kii ba pare dafa tas waaw waaw ndax ki nga xam ne dafay takk beneen soxna fekk mi ngi nàmpal doom ndax am na droit ne ko doo indaale doom bi sama kër am na am na droit ci loolu am na droit ci loolu ki nga xam ne mooy sëy moom am na droit ne ko ah doom bi seetal keneen ku ko nàmpal waaye man booy sëy si sama kër doo indaale doomu jàmbur loolu tax islam prévoir ne yaay ji bu xisee ba sëy rek doom bi dañ koy jël ci moom jox ko maamam wala tantam ndax li ñuy ragal ci loolu mooy fitna boobee mooy am na nit ñoo xam ne nii yàlla def na ci ñoom ak mbaax xale yi biñ jur ak biñ jurul la ñemere mais am na ci ñu bari ci nit ñi loolee day diis ci ñoom rawatina seytaan yi li mu dogal ci bopp nit ñi mooy doomu jiit la du doom loo sonn ci moom it bis dana la masa won lu kii moo tax lu bari ci nit ñi duñ sawar ci ñoom ala kulli haal am na ca àq waaye nag nañu xam ne bu doon te ni it ne recevoir nangu na ko loolee tuyaaba ju rëy la ndax ci bi dar si ñu passé yéen ñu ngi ci doon jàng ki indi doom ci kër jàmbur ba do di ko nampal bàyyi boobu kooku muy sëyal bàyyi lay doon ci moom ba xale bi day nekk frère waxuma doomi ndey di koy nampal waaye bàyyi boobu sax day nekk seeni frère loolee kon tuyaaba ju rëy la waaye nag bu dee moom mu lu ko toléré loolu it islam du ko ci wax dara bu ko neexee na ko sa doom ji doomi jàmbur daal mu ko indi sama kër mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam waaw ki nga xam ne dafa topp yaayam njàngam ku ko war a fay lépp luy dépense bu jëm ci doom bàyyi koy gàddu wa alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf bàyyi mooy gàddu bépp frais bu ñuy def ci doom yaay lam man mooy taxawu ko ci dooleem ak conseil am mais bu dara de su lu dul dépenser su boobaa bàyyi la ñuy laaj mooy dépenser bàyyi moom mooy faj bàyyi mooy fay njàng même bu dee ne yaay moo yor xale boobee ndax loolu moom la ko suñu borom yàlla subhanahu wa taala sédde yaay ji nag la yàlla sédde affection ba sang baag taxawu baag garde baag lu deme noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ah naam naam waaw yaay bu dee ne dafa am doom jox keneen mu nàmpal ko ndax loolu mënu ko lor waaw loolu mën na ko lor mi bariwul am na jigéen ñoo xam ne ñàkk a nàmpal mën na leen a lor ba da ngay gis ñi nga xam ne dañuy toppatoo wàllu cancer du sein bokk na ci lu ñuy gën a déplorer mooy xale yu jigéen ñi nangootuñu nàmpal te ñu bari ci ñoom mais moomee nga xam ne nii dañ koy bàyyi nàmpaluñ ko mën na leen a créer la ay problème waaye nag loolu nekkul ci ñëpp am na ñoo xam ne dañuy am doom doom bi am deux mois faatu yaa ngi dégg ca du leen def benn problème ala kulli xaal du ñëpp jigéen mën na am doom doom bi faatu wala mu nàmpal ko quelques mois mu faatu teewul ween yi day dem ba fer mu jëlaat kii normal am lu raar raar raar raar nag am na ci ñoo xam ne di leen créer ay problème loolu moo tax la gën a wóor mooy intellectuel la koo mën a doon wala waay del nàmpal sa doom loolu moo gën ci yow ci sa wàllu santé mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam te niñ ko waxee it mooy nampal boobu mbokk dafa am jeexital bu muy def ci xale bi moo tax bi ñu commencé suñu doom yi di leen nampal biberon meewul nag xale yu bëri jukko nag rek mu nekk ci ñoom ndax mi ngi noonu maadaama meewu nag lañ leen di nàmpal dana ma fàttali Abu Hanifa nga xam ne moom mooy ki ñu jëkk a jagleel ngir ci lislaam borom ñeenti ngir yi Abu Hanifa moo ci mag ñoom ñëpp Abu Hanifa da daan nekk di bayaan bu mujj rek mu mel ne lu gàkk mu ne lii day mi ngi ma dale ci ñàkk ndigal bu sama yaay erreur bu sama yaay defa ndax sama papa dana woon sama yaay sama doom ji fexeel ba bu ko kenn nàmpal ku dul yow doonte ne ni histoire yaayam jooju ak papaam jooju daañu ko mënoon na jël dara si yëpp waaye ala kulli xaal sama doom bu ko kenn nàmpal ku dul yow yeneen bis benn soxna ñëw fa rek ñoom seen aada la woon amul problème doomi jaambur day jooy rek nga jël nàmpal nee na soxna su xaw a doy waar ñëw fa rek daal di may jël di ma nàmpal sama papa bi mu ko yëgee mu mer ci lool lool lool lool mu ne nag jàpp na ne gàkk yi may gàkk soo ndaw soo see ma nàmpoon ma ma ma ko yóbbee ala kulli xaal kon muy wane ne daal jigéen daal loo mën ci nàmpal sa doom nàmpalu affection loolu dafay am jeexital bu rëy ci bu muy def loolu naka noonu itamit même bu doon du suñu aada waaye même bu doon dem nga ba sa doom yàlla nattu la ñu koy jox keneen ku koy nampal gal la waaye tànnal ana ban jigéen nga koy jox bu jàpp na soo bi ko sale déedéet yonent bi alayhi salaam ku ko nampal ah xalima xalimatu saadi xalima mooy ku lewet ki gis ngeen yàlla da koo da ko da da da koo tànnal mi ngi noonu amina mooy ki borom ki wóor ki ki am dal gi jàmm ji mooy yaayam xalima ku lewet ki mooy ka ko nampal ñu ngi noonu abdullah mooy baayam di jaamu yàlla ilaahi ca mooy yàlla daf ko tànnal lépp ba tànnal ko sax ay tur yu gën a tedd su ko defee kon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax dafa am jeexital bu rëy wallahu subhanahu wa taala aalam naam ala kulli xaal kon ñu jëlaat beneen bind mu ne wala yalzamu rajulu nafaqata illa ala zawjatihi nekkul góor muy dépenser boo xam ne dafa war ci moom lu dul xanaa ci soxnaam kaanat ghaniyatan aw faqira na doon soxna sa dafa woomle wala soxna sa dafa ñàkk wa ala abawayhi alfaqirayni ak it sa kaw ñaari way jur yoo xam ne dañoo ñàkk wa ala sigaari waladihi ak it ca ñu nekk ndaw ci ay doomam allazina laa maala lahum ñooñu nga xam ni amuñu benn alal ala zukuri xatta yaxtalimu war nay dépenser ca góor ña ba baa ñuy majeur wa wala zamanate bihim fekk ne amul handicap bu nekk ci ñoom te mooy ñu lafañ wala ñu paralysé wala kaza wa kaza wa alal inaasi war naa dépenser ci jigéen ña xatta yan xatta yunkaxna ba baa ñu leen di takk ci sëy wa yadxulna bihinna ba baa ñuy dugg ci ñoom seeni borom kër jël leen ànd ak ñoom ci lan ay azwajuhunna seen borom kër ya wala nafaqata liman siwa haulaai min al aqarib naka noonu it dépense nekkul dooti war ci ñeneen ñu dul ñii mën a tundal ca ña nga xam ne mooy jege ñaale ya mi ngi noonu bokk fii day wax góor ana lan la lislaam wax ni ñii ñoom farata la nga dépense ci ñoom da ngaa am ak da ngaa ñàkk selon sa kéemtalal kattan ka ca jiitu mooy soxna mbokk soxna bu ñu la ko mayee niñ ko jàngee sànq mooy risquhunna wa kiswatuhunna yow la war yaa ko war a dundal yaa ko war a wadd suñu borom mu ne askinuhunna min haysu sakantum min wujudikum dëkkal leen leen fa ngeen dëkk ci seen kemtalal kattan soxna si bu dee daa riche teewul yow yaa yor dundam yaa ko war a dundal yaa ko war a waddu allahuma lu dul mu daadi la koy teggil mi ngi noonu allahuma lu dul mu daadi la koy teggil ca ki jiitu woon ci ñoom mooy Khadija bintu Xuwaylid soxna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yéen ñëpp xam ngeen ne moo nekkoon borom alal rasul sallallahu alayhi wa sallam ah employé la woon ci moom yonent bi alayhi salatu wasalaam daana def léeg-léeg ay nit di ñëw di ñaan dimbal booba sax nekkul yonent ak mbaaxam muy jël ci alal ji di joxe ba bis mu ne Khadija aywa nag ma baal jéggal ma de léeg-léeg ma def loo xam ne ni doo ko yëg Khadija na ko lan daa di bàyyi ba kilifay Quraysh yi toog ca Kaaba ga mu ñëw mu ne leen hee yéen waa Quraysh maa ngi leen di seedaloo ne sama alal jëpp teg naa ko ci loxo muhammad ni ma jële sama bakkan teg ko ci moom lum def sama alal maa ko def kum may maa ko may kum jox maa ko jox loolu lépp seede leen loolu radiyallahu anha moo tax yàlla bégal na ko yónni jibril ci yonent bi alayhi salaam na ko bégalal xadija ca pale ya koy xaar ca biir aljanna yàlla na yàlla def ñu ay dëkkandoom nga noonu bokkoon na ci ñuy bégal aljanna ba muy fa ala kulli xaal kon ñu xam loolu même bu dee dafa ma dafa riche bu la ko teggalul am na droit ne la yaay joxe dépense kër gi loolu mi ngi noonu dana nekk nag des fois ay problème yuy xew loo xam ne ñun yàlla nattoo imam dañ ci yëg lu bari masalan waajaa ngi nii nekk ci kër gi day xëy suba sol tëneem liggéey soxla si sol sol tëneem liggéey ñu dem léeg-léeg soxna see koy dëkk xëy dëkk mujj wàcc ba pare nag ne ko nag luy dépense yi a koy def mbokk loolu ay njumte la islam li tax mu ne góor mooy dépenser parce que jigéen mooy toog ci kër gi di régler kër gi yonent bi alei salaam ne al mar'u al mar'atu ra'iya fi bayti zawjiha mooy toog ci kër gi di régler di di di di di toppatoo kër gi góor dem di liggéey di dépenser mais bu dee góor dafa xëy jigéen xëy borom kër gi am na droit ne ko ah dépense bi kat da nga ciy participer tel su bañee mu ne ko kon bàyyi liggéey bi toog ci kër gi man may liggéey yi ñu bokk kër gi loolu am na ci droit su ko defee kon fàccaam bu dee ne yàlla nattoo na la ngay liggéey am na ci ñu bëri ñoo xam ne ñoo ëpp salaire seen jëkkër léeg-léeg nga dégg ko koo xam ne day wax naan soxna si moo ko ëpp salaire waaye ampoule sax bu paanee ci kër gi il faut moo ko jël mbokk loolu ay njuumte la lu tax mooy am na droit ne la sama soxna nga toogal toogal ci kër gi kon la ca man la ca des mooy négocier mi ngi liggéey yaa ngi liggéey na def dara nga def dara loolu mooy la nga xam ne ni daal mooy mbir bi am maa nag waa ji moom bu amee ak mbaaxam seetaan la ci liggéey bi laaju la dara amul problème waaye daal xamal ne am na droit ne la la ngay am dépense ci wala mën na la toogal ci kër gi loolu moom ñu bàyyi ci xel bu baax amma nag bu dee ndaw sa moom am amam boo yàqalu ko toog kër gi di surveiller la nga xam ne moom la jëkkëram soxla su boobaa jëkkër gi amul droit lenn loo xam ne da koy laaj ci wàllu googee mu ngi noonu kon kii mooy farata ci ki nga xam ne moom da nga war a dépense ci moom riche na ak pauvre na ñaareel bi mooy kan mooy waajur yoo xam ne dañoo ñàkk du ne doom yaa war a dundal say waajur waaye bu dee waajur yi amuñu lu ñu dundee yaa leen war a dundal du yell mukk ci doom nga nekk sa kër di añ ak reer say waajur di fande wala nga am foo dëkk say waajur amuñu fu ñu dëkk abadan islam du nangu loolu tant que amuñu yaa leen war a jox suñu amee nag islam moom teggil na la loolu i ngi noonu gannaaw ba say doom mooy doom yoo xam ne nii yaa leen jur ca amuñu alal te quatre-vingt-dix-neuf pour cent noonu lay demee am na ci nag ay cas exceptionnel doom mën na am alal ndax masalan mën nañ koo may alal mën naa donn alal ci ay frère am yoo xam ne juróo leen yaayam mën na dee mu donn ci alal mën na am alal su dee ne doom ji am na alal su boobaa dañ naan ah dund bi nga koy dundal nag dootul farat amma bu dee amul alar yow yaa ko war a dundal ba baa muy majeur ba baa muy majeur bu dee jigéen a yaa ko war a dundal ba baa borom këram di ko jël muy sëy allahuma lu dul xale bi bi mu majeure da ca ànd ak nag handicap ba mënul liggéey mënul liggéey su booba dañu naan yaa ko war a continuer yor bu baa muy dee amma bu dee xale bi dem na ba majeur su boobaa la nga koy defal teraanga la jàppale la waaye nag dutul farata farata bi mooy nga yar ko ba mu majeur loolu mi ngi noonu doonte ni bokk jamono yu jëkk yi nag ak jamono tey bokkul ndax jamono yu jëkk yi ku majeur rek sax yambar moo lay tey liggéey waaye moom tool yee fi nekk ak àll beeg yooyu donc ñëpp dañuy liggéey amaa nag suñu jamono tey ku ne gis na ni xale yi léeg-léeg ñu majeur ñu ngi seen i diplôme ñu ngi seen i kii fu ne ñu dugg fu mu amuñu fu ñu xëyee ku mel noonu nag vraiment da nga ko war a jàppale mi ngi noonu tonte ne ni farata bu moom ma nga yemoon fa majeur loolu kon la wax ci wàllu googee mu ne nag ñeneen ñu dul ñii mooy doom way jur soxna keneen ku dul lii moom la nga xam ne mooy ay dépense am waru la dépense am waru la loolu la ñu wax nii ci mazhab Maalik allahuma du dul soo demee ci yeneen ni borom xam-xam it dañ ne sa jege ñaale yi bu dee ne dañoo ñàkk te yow nga woomle wuroo leen a seetaan ñuy xiif soo ko defee da ngay am bakkaar rawatina ñooñee suñu borom yàlla lim lu mel ni fi muy wax naan man ngeen lekk seen kër wala seen kër baay wala seen kër frère bajjen nijaay noonu mu ko waxee ñooñu nga xam ne nii am nga droit dem lekk seen kër même bu dee yëguñu ko lu mel ni ay mazhab imam Shafi ay moom danaan aaya la buy woñe ne ay jege ñaale muy frère bajjen ak maam yeeg yu deme noonu ñooñu nga xam ne nii dañ caa ñàkk amuñu dara yow mi am ah war nga leen a jàppale waaye nag loolu gisuñu leen la ci borom xam-xam yi amma la nga xam ne daal dëppoo nañ ca moom ci farata ñi nga xam ne moom yaa leen war a yor ñetti catégorie yi la soxna way jur doom keneen ku dul kii jaamu yàlla la nga taxawu ko ci la ëpp ca la borom xam-xam yi wax kon buñ jëlee suñu bind bu mujj wa ini tasaa bu dee ne waa ji am amam yaatu na fa alayhi ixdaamu zawjatihi war naa wutal soxnaam benn mbindaan bu koy jàppale wa alayhi an yunfiqa ala abidihi wareef la ci moom it mu dépensé ci ay jaamam wa yukaffinahum ida maatu mu sang leen heure boo xam ne faatu nañu waxtilifa fi kafini zawja ndax soxna nag bu faatoo yow yaa ko war a waddu fa qaala ibnu alqasim fi maaliha borom xam-xam bu ñoo ibnu qasim bokk ci ulama mazhab malik nee na bu dee am na alal kay ci alal lam la ñuy jële luñ koy wadde wa qaala abdulmalik ibnu fi maali zawji abdulmalik mu ne déedéet borom kër gi moo war a jënd càngaay yañ koy wadde wa qaala saxnuun saxnuun moom nee na in kaanat maliya bu dee ne dafa am alal fa fi maaliha ca alalam lañ koy jële wa in kaanat faqiira su dee dafa ñàkk fa fi maali zawji ca alalu borom kër ba lañ koy jële non ala kulli xaal mbokk day wax fii ci ne góor bu alalam yaatoo war naa wutal soxnaam li nga xamee ne nii moom mooy ku koy jàppale ci kër ga loolu nag da ngay gis ni dafay dellu ci ay aada dafa am aada yoo xam ne nii doomu aadama yi gox yi ñuy nekk suñ gisee ko am ba pare ñu gis soxnaam di liggéey yenn liggéey yi loolee dafay nekk ak suufantal nekkatul maaruf ci ñoom loolu am na ci ay aada yu bari bari na ci xëy na sax leen ci ay famille Dakar waaye nekkul loo xam ne lu automatique la man ngaa dem ci yeneen aada yoo xamee ni nii loolu boo ko doon def sax da ngay jaaxal nii ala kulli xaal sëy nañu xam ni la ca gën a am solo mooy li ñu tuddee maaruf mooy nga def loo xamee ni nii nit ñi duñ la ca xeebe duñ ca xeebe sa soxla ndax lii mu wax nii yéen ñëpp yéen a ngi fàttaliku ne rasul sallallahu alayhi wa sallam amuloon ay mbindaan këram doomam ja Fatima bintu Muhammad nga xam ne bokk na ci jigéen ñi gën a tedd yi mas a teg tànk ci kaw suuf ñëw na bis ci baayam won ko lo ci sunu yaay Aïcha won ko loxoom yi mu ngi dagg def ay tër-tër ndax root bi muy root ak dëbb bi nga xam ne mi ngi koy dëbb ne fekk dañoo am ay jaam yu ñu jàpp mu ne ko suma papa bu ñuy dama bëgg nga waxal moo ko mu may ñu benn jaam bu ñuy jàppale ci liggéeyu kër gi bi Aïcha ñëwee wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sol dàllam bi mu ñëwee ci kër Ali ibn Abi Talib mi ngi Fatima ne mi ngi fekk mag Ali ci kaw dal bi bi ñuy jóg mun a toog leen ñu toog yonent bi ñëw toog ci dal bi ñetteel mi mu ne dégg naa da ngaa ñëwoon kër ga ngir ma wutal la booy bu lay jàppale ci liggéeyu kër gi mu ne ko ah kay wala sama loxo yi yonent bi ne ko xanaa doo kaay ma wax leen lu gën booy buy ñëw di leen jàppale seen kër mu ne ko ah kay mu ne ko bu ngeen demee ba toog seen lal di tëdd da ngeen wax subhanallah fanweeri yoon ak ñett alhamdulillah fanweeri yoon ak ñett allahu akbar fanweeri yoon ak ñeent lii Ali ibn Abi Talib ci mujjug dundam mi ngi koy fàttali benn ne depuis Yonent bi alayhi salaam wax ñu ko ba tey mësuma koo bàyyi waa ji di ko laaj naan ko même yow mu safay ni mooy jamono bi nga xam ne fitna am na ba xeex am digganteem ak ay Aïcha ak ay Maawiya ak ji dama noonu mu ne même jamonoy xeexu safay ni mësuma fàttaliku guddi gu ma tëddee te defuma subhanallah 33 alhamdulilah 33 allahu akbar 34 loolu lañ ciy jëkk a déggee mooy ngalawaay bu ngeen ko fàtte yee ñit bu ngeen toogee seen lal dee leen def seen azkar di ko teel a def seytaane day jëkkante ak yow bëgg laa fàtteloo bëgg laa nelawloo waaye fi ngeen wax bismillah toog ci kaw lal bi rek loolu ci azkar yi la bokk bokk na ca qul huwallahu ahad qul adul falaq qul adul nas nga ëf ko say loxo raay ko say yaram ñetti yoon bokk na ca ayatul kursi ak ay yeneen askar ala kulli xaal profitol def ko balaa cheytaan yi di jëkkante ak yow ñaareel bi it ñoo ngi gis ne rasul sallallahu alayhi wa sallam mi ngi tànnal soxna Fatima liggéey boobu muy liggéey ci kër gi mbokk amul lenn lu ci yàlla di neenal am déet du ab root du ab dëbb du ab fóot du ab paase lenn loo xam ne jigéen dana ko def kër jëkkëram illa kutiba lahunna lu dul ñu bindal ko ko comme la ko suñu borom di wax xasootu taboo mi ngi noonu wala yunfiquuna nafaqatan saxiratan wala kabira wala yaqtuuna waadiyan illa kutiba lahum amul lenn loo xam ne jigéen di ko def ko jëkkër dul ñu bindal ko ko loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tànn loolu soxnaam mu def ko loolu it kon muy wañe ni ñu ngi dépendre ci ay aada allahuma nag aada yi tamit du ñu basé wu rek ci ne lii aada la kon islam da koy nangu déedéet mbokk julli bépp aada buy lor it islam nangu ko de wala man ci àll bi fi am na ñoo xam ne nii jigéen ñi liñ leen di teg jéggi na dayoo jigéen ñoo xam ne ñooy bay ñooy wëgg fas ya ñooy daanaka quatre-vingt-dix pour cent liggéey yépp yépp yépp ñoo koy gàtt loolee mbokk aada bu bon la am na ci sax ay gox yoo xam ne daanaka góor ña piliyaan rek ngay jaaxaan ca pénc ma jigéen ñi ñoo yor lépp suñu ñëwee ba pare sukk sa kanam nu nuyu la jëndal la guro jënd mbokk loolu ah même bu dee aada yëpp dañu xam ne islaam mi ngi rafetlu aada boo xam ne lor amu ci amma nag bu dee bu dee ne aada buy lor islaam moom du nangu loolu mbokk kon loolu mooy bind bi ñu waroon a jël tey gàtt na waaye yal na ko yàlla barkeel ñu xam ne lu tuuti ñu dégg ko jëriñu ci moo gën ñu wax lu bëree bëri loo xam ne nii. doy doon lu amul njëriñ yal na yàlla déggloo ñu suñu diine wàcceel ñu jàmm ci suñu sëy yi may ñu njaboot gu barkeel wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ndax la nga xamee ni nii mooy say maam yow yaa leen war a yor su dee ne dañoo doon ñu ñàkk loole bu dee ni li ñu jàng ci mazhab Malik dañ ne déedéet maam wareefam mi ngi waroon ay way ay doomam doomam yooyu ñoom la islaam tegoon ñu yor leen bu fa doom yi nekkul it yow la nga leen di defal day nekk sarax boo leen di génneel waaye islaam santoo la ne nga gàddu leen yor leen loolu ñu wax ci maam it la ñuy wax ci ab sët moo dina sëtit bàyyi moo ko war a taxaw su fa bàyyi nekkul loolee di ngay gis ne wareef la day doon gëneel ci nga defal ko ko loolu mooy liñ jàng ni ci mazhab Malik waaye maa ngi lay wax sànq ci bu mel ni imam Shafi'i yi moom la mu gis mooy la nga xam ne mooy ñii di bokk arxam mooy mbokk yi jegeñoo yi dañoo war a day nekk farata ñu jàppalante bu dee ñàkk am na te dañuy gis ne suñu borom mi ngi wax ci doom bi nga xam ne bàyyam moo ko war a taxaw su fa bàyyi nekkul borom bi mu ne wa alal mawludi mislu dalik mi ngi noonu wa alal waarisi mislu dalik waa ja nga xam ni dafay donn gannaaw ba loolu lay am almuhim daal bu dee ne ci lay farata ñu dëppoo ca mooy way jur lay doon ak doom direct amma bu ñu xasee ba paase way jur mu jëm ca maam ya loolu ay ngëneel la bu paasee doom jëm ci ay set loolee ay ngëneel la bu ñuy sukkandikoo ci gisunu mazhab Malik wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon su ngeen jëlee seen lal di tëdd kon ki nga xam ni guddi gi da ko fanaani liggéey bëccëg lay nekk di tëdd heure ba muy tëdd bëccëg heure boobee lay def ay askaaram yam waroon a def ci guddi loolee mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah ndax askar yi bokk na ca suratu sajida déedéet suratu sajida ak suratul mulk ñëw na ci ay asar yonent bi da ko daan jàng par guddi waaye nekkul ci askaaru bi nga tëddee salal amma nag guddi nga jàng ci suratu sajda ak suratul mulk loole ci ay ngëneel la guddi nag ñu ngi commencé fi jant bi di soo ba ba fa fajar di xari amma askar yi ngay nekk ci kaw lal loole moom bokk ca la nga xam ne mooy alxuraan bu ñuy jàng lu dul la nga xamee ni ni mooy li ñu leen wax ayatul kursi ak almuawizat mi ngi noonu bokk na ci ngëneel li li ñu war a jàng guddi lu mel ne amana rasul waaye kenn tënk ko ci kaw lal yonent bi alei salam nee na ku ko jàng ci guddi ka fataahu guddi goo ko jàng dana la aar dana la doy borom xam-xam yi dañuy bëgg nga teel koo jàng ngir mu ëmb guddi gépp mi ngi noonu allahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal jàpp naa li nga laaj ci ki nga fayal muy jàng gannaaw ba muy liggéey ndax moo war a fay mbindaan bi loolu wax wax wax nañu ne góor moo war a yor soxnaam lu tax dafa am àqu téye ko ci kër ga am xar sax boo ko yeewee yaa ko war a dundal am maana bu dee téye googu amul da ngay xëy liggéey mu xëy liggéey su boobaa am nga droit ne ko kat li ngay liggéey participer ci kër gi naa loolee mi daan ba lay fayam ceeb lay jëndam facture lay fay loolu moom la ngeen dëppoo la boo ko ko baale it baal nga ko ko waaye daal ni nga amee droit ci ne ko toogal ci kër gi noonu nga am droit ne ko defal ci kër gi su bañee ne nga ne ko ah kon nag islam may na ma doo gé doo génn kër gi toogal ci kër gi man may liggéey lu ñu am ñu bokk te loolu moo nekkoon cosaan amma li xew ci yenn aada yi ci sunu réew yi naam léegi-léeg mi ngi gën a bare suñu mbokk yi nekk Casamance mooy loolu it ñàkk ji ñàkk xam diine moo koy waral moo dine ne àjjana jigéen mi ngi ci loxo borom këram donc ñaari baat kii mu ne la nangu naa sa caabi àjjana boo ko caabi àjjana yàlla rek moo ko yor moom ci boppam kan moo ko wax àjjana li jëm bay nangu caabi àjjana keneen ala kulli xaal caabi àjjana ci loxo yàlla la nekk li wóor daal moo dine ne bokk na ci sabab buy tax jigéen di dem aljanna mooy mu fexe ba dab ngërëmul jëkkëram bil ma'ruf ci loo xam ne njëkk la ci lépp lu islam xaraamul amma nag loo xam ne it góor gi da koy def influence suñu borom yàlla dafa bañ loolu mi ngi noonu nee na bu ñu noggatu jigéen ñi bu ñu xatal jigéen ñi aaya yu bëri wax na ko ca baqara ak suratu nisa di wax ne daganul ci góor muy def lenn ci loo xam ne nii day tax muy noggatu soxnaam wallahu subhanahu wa taala aalam waaw waaw yaakaar naa kon ñu mujj ci mbokk bi rek bismillah waaw léegi soxna si ne day liggéey wala ci kër gi la nekk day liggéey pour góor ku bët waa la ku li xaal mbokk ni mu leen waxee rek moo di ne ni lépp loo gis dafay dellu ci aada mooy bu dee ne li nga xam ne mooy seen aada te bari na ci ci Ndakaaru góor gi am na kattanu utal soxnaam mbindaan yéeg ne nécessité la parce que it léeg-léeg benn jigéen kese nekk ci kër moom kese mooy togg moom kese mooy fóot moom kese mooy dem marché moom kese mooy def nangam loolee dëkk ci dëkk ci dëkk ci ku ne xam ne loolu métti na kon góor gi bu amee kattan utal ko mbindaan loolu utal kattan utal ko mbindaan waaye loolu moo tax waa ji la mu wax mooy bu kattanam yaatoo amma bu amul kattan nag xam na amul kattan waaye daal bépp góor boo xam ne am nga yërmande gis nga sa soxna liggéeyu kër gi moom diis na ci moom su boobaa nga wut koo xam ne nii ku koy jàppale la loolee vraiment lu lislaam rafetlu la yonente bi alayhi salatu wasalaam daanañu wax naan xayrukum xayrukum li ahli ki gën ci yéen mooy ki gën ci njabootam te loolu it mooy nga def ci ñoom yërmande fii ak yëggul ci loo xam ne nii day nekk ak yàq wala nekk ak bew daal wares nga ko jàppalante ak soxna yi mi ngi noonu mbokk julit wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain